jaajëfal alxaaji suñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciranga ak poche yi def dara sëñ Mbàkke maa ngi woon ci man lam yahtam bi umuuril muslimiina fa laysa minhum bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon muslimoona yépp ne liy xew ci pinc mi ne leen yi yitteel bu leen seetaan na ngeen ci bokk ndax inni jaayu fil ardi xalifa jam moo tax su penc mi jagee ngeen am jaajëf bu ëllëgee bu jagut ngeen am yeddaange bu ëllëgee ndax waqifuhum innahum mas'uluun kenn génnu ca waqifuhum innahum mas'uluun kenn génnu ca maalakum laa tanaasaruun jayit kenn génnu ca ma tax nu indi jataay bii nga xam ne moom lañu ñu tàmbali woon bërki démb mu jëm ci risaalatul islaam tolloon ci ne lislaam yoonam a ngi ci lépp lu yoonam nekkut nekku fi subhaanahu ca ko ala abdihi li yakuna lil alamina nadira ma doon indi ay firnde ci yaatuwaayug lislaam ak lim ëmb lépp ak lépp lu ne ci penc mi yoona nga ca ma ne amut lu ci nekk lu jafe ba nit mënu koo def ñaareel ba jamono du dem ba weesu ko sunu mbokk Assane Seck dañ koy invité bari ki démb tey sànn ci cib télé waaw cib télé mu wax fi la am solo mooy alxuraan académiciens yi dabaguñu ko te duñu ko ma tolloon démb ci juróom yi nga xam ne fu lislaam yëkkatee ab yaram daanaka yii a tax mu yëkkati ko fu mu àttee àttee yu sévère daanaka yii a tax ma njëkkee woon ca sàmm bakkan yi tegoon ca sàmm alal yi tegoon ca sàmm xel yi démb ma yëkkati jotaay bi ma tolloon ci sàmm diine sàmm diine li nit ñi am ci diine duñ wàcc ci penc mukk ku ciy fo kenn du foye diine ci ku ciy yàq mbaa kuy kuy kuy fo ci pas-pasu jàmbur fekk nit toog nga ne ko li nga gëm baaxul walla nga ne ko bokkaalekat nga mbaa nga ne ko bi yéefar nga ñu bàyyi xel ci yooyu waaw ñu bàyyi xel ci yooyu ginnaaw lakum dinukum waliya diin am na ginnaaw lakum dinukum waliya diin am na koo bëgg mu ñëw ci sa diine bu mu tax nga saaga diineem propagandal yaa xam ni ngay def waaye songu diineem wax ko ca nangam rawatina ci biir jenn diine ay nit na ci biir di génnante ci biti ala kulli xaal loolu tam ñu bàyyi ci xel lool mooy diine ñu bàyyi ci xel lool bàyyi xel diine ji te yëg ne penc mi moom dem te yóbbaale ko yomb fi togg te safu ca yomb fi waaw luñ suur rek mu saf ko mu saf diine bi ci mujj ci juróom yooyu mooy nu sàmmal nit ñi seen der yi ñu sàmmal nit ñi seen der yi waaw réseaux sociaux yi li ñuy wax ci deri nit ñi hmm. loolu du jural jàmm ki koy wax du jural jàmm ki ñu koy wax du jural jàmm pinc mi waaw loolu dañ koy ñu bàyyi ci xel baax a baax juróom yii lu ci nekk lislaam teg na ci yar boo xam ne bañ ñu def koo tax mu teg ko ca taral ko lool tàmbalee ca sàmm bakkan waaw ku rey ñu rey ko tàmbalee ca sàmm alal ku sàcc ñu dagg loxoom tàmbalee ca sàmm xel ku jaay dorog walla walla yamba walla nga jaay euh, sàngara ah, ñu duma la agsi ci diine ji ku génn ci diine dugg ca jee la la di gàll mooy rey sàmm jaar ca der ba ku xas as gor nañ koy def yar yarmunal musinaat mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla na sunu diine ji nekk ci sunu yëg-yëg nun ñépp nu gis ci sunu bopp waaye ñi dagaan réew mi it gis seen bopp ci yi nuy wax nun ñiy tànn it nu gis sunu bopp ci yi nuy wax ba bu ñu tànnee la teg sunu loxo fañ ko war a teg ba du àgg ci taribat ya daak lislaam yi nuy waxtaane tem jëm ci euh, tem jëm ci politique dafa am yoo xam ne moo ko fi tax a ñëw danaa ci lim ñett danaa ci lim ñett yooyu ko fi tax ñëw àbb leen ko yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla def ngeen di juróom yi bëgg xëccoo yii ab leen ko te ngeen déglu nag laay ja yàlla mooy malikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tanziul mulk mimman tashaa lañ koy wax nun ñëpp moom lañ koy bàkke tuuti ak tanziu tuuti mooy yaay jox nguuru ku la neex pourtant ñi bëggoon a nekk ay daa bari woon nañ waaye tuuti tuuti ji buñ ko bàyyee xel rek yëg ne tànneef yi ñim dal ci seen kaw ndax nit mënoon naa wër senegal yépp te du am waaw te du am walla ak wéra di dugg ko yàlla tere wala ak banque dugg ko yu ne mën na cee am waaw kon àbbaleen ko ñetti yii moo tax lislaam ñëw ba ci jiitu tazkiyatun nafsi wa tathiruha la jiitu ci li lislaam bëgg mooy yar bakkan allahu akbar mooy yar bakkan ak defar bakkan yar bakkan yar bakkan lu am solo la tazkiyatu nafs wa tathiruha bakkan doomu aadama ñett rekk la ci am maanaam ñetti bakkan a fi nekk Doro Sylla day nekk ca France waaw tubarkalla Sàll nekk ca Suède hmm? Pape Mor nekk ca Japon Pape Ndiogu Sàll nekk ca Suède sunu boroom ñun ñëpp ñoom ñooñu ak ñun ñi ku ci nekk dangay ngay déparé bakkanu al amaara bi suu li ëpp ci ñun dañ cay jaar al amaara bi suu luy loolu mooy bakkan boo xam ne lim lay digal bokkut ak li nga war a def bakkan boo xam ne daf lay bàyyiloo li nga war a def di la digal loo war te def benn misaal boo fi jógee bëgg samp daara yaag sa bakkan ba baa ngay bañ ba baa ngay bàyyi boo fi jógee bëgg a def bëgg a samp gasub teen yaag sa bakkan bi waaw waaye boo fi jógoon tey bëgg a bëgg a sponsorise am po yaag sa bakkan bi luy loolu mooy boo jógoon daat ne dama bëgg yóbbu ci daara yi diw nàngam sa bakkan bi la ah kooku daaraam ji mat na daara ja àgg na daara ji nii gis nga jàngalekat yi boo leen ko joxee duñ ko def ci daara ji gis nga dañ koy jënd ay oto dal maanaam lu ne dana commentaire yu ne sa bakkan dana la ko jox ba nga ne ko ñukk nga jóg nag bëgg sponsorisé am po mbaam pecc wala yeneen sa bakkan bakkan bi amaare bisu ne la defal bañ xam yaay kan foofu moom def ci bañ xam yaay kan ndax dana tax ñu xam yaay kan moo tax ba demee ci jàkk yeeg jumaa yi da ngay séen ku ngàbb ak mbuus naan luwaay man ci jàkk ji yëngal bañ julli ba noppi bu ko du am du am vingt mille maa la ko xade nga séen am po nit jóg rek waxuma la waaye po mi kenn du joxe cent wala ki vingt-cinq tax foofa ci la fa la yi di génn fa la caabi oto yi di génn fa la caabi kër yi di génn lu tax su boobaa dañoo am an nafsul amaara bi suu an nafsul amaara bi suu waaw allahu akbar an nafsul amaara bi suu ma ngi ca suurtu yusuf bakkan ba bu nit ñi jógee jëm ci lu baax mu ne la toogal buñ jógee jëm ci lu baaxut mu ne bu la fa kenn jiitu bu la fa kenn jiitu bakkan boobu pam njoogu yàlla bu nu ko am yàlla bu ngeen ko am waaye woy politique yi nan bàyyi xel loolu da gis penc mi fu ñu toll ñu naan jikko yi yàqu na jikko yi nangam jikko yi nangam jikko nangam waaw liggéey leen foofu waaw bàyyi leen ci xel baax baax ci jikko yooyu ndax daañu war toog rek ku nekk naan jikko yi yàqu na jikko yi yàqu na rek te duñ xool lu ko yàq duñ xool lu koy defar loolu lu am ci pénc mi ngeen ci suratu shams qad aflaha man zakkaha wa qad moo fi nekk loolooy bu jëkk bi bu ñaareel bi ci li tax lislaam ñëw te mooy ak jubluwaayam mooy tadimu rawabit al insaniya allahu akbar mooy renforcer renforcer relation humaine yi fi nekk su fekkee nu lañ koy waxee waaw relation yi nekk suñu diggante l'islam ñëw renforcer ko tadimu rawabit al insaniya moo tax chef parti wër te wax lu xàjjalam pénc déedéet bu kenn ci ñun wax luy xàjjalam pinc waaw fi nga bokk fakkee bokk fiñ bokk bokk lépp shu'uban wa qabaa'il rekk la te itam lépp suñ ko boole moo tudd Sénégal ndeysaan lépp moo tudd Sénégal kon relation yi nga xam ne moo am ci suñuy diggante rekk waaye na gën a dëgër suñu démb de yi suñu mag ñi waaw taal ngol ngol sunu mag ñi démb biñ fi indee kal indi fi gàmm diggante nit ak nit indi fi relation yooyu ah loolu de ku ko dëgëral bu dëgëree danañu amal solo lool waaw li may wax ndaw kundaay yi <laughs> seen soxna boo woon ma téléphone ne ma li nga wax vraiment ci nogay ne ñaari jaar yu nopp la am xaw na ma déranger ma ne ko waaw yow <laughs> dëgg la xam na la déranger mais nogay laa wax te li ma wax noonu moom déranger wu ko waaw ndax mag ñee ko defoon ci pénc mi mag ñee ko defoon ci pénc mi waaw Babacar Diakhoumpa mi ñuy wax it naan ci fixe lay woote loolu itam <laughs> mag ñee ko defoon ci pénc mi waaw euh, garaawut waaw tubaarkàlla euh, sévère tamit waaw ñiñ koy wax ñoom xam nañ ko ñi koy dégg xam nañ ko waaw ku sant ndaw ku ne loolu neex wax ko waaw imaam Ablaye Ndaw ma nga fële ca ndànd tabarkalla saa bu nu xëy ci moom la ñu xëy <laughs> waaw mas naa fee siyaare xaaj Abdul Aziz Al Amin waaw mu mu jox ma da mu jox ma dara waaw daal may jox ñaari yëf ni ma lii ma maa ko def ci daal ji man waaw mu ni ma lii nag maa ko def ci li ngay wax ndaw kundaay yi <laughs> ma ne ko kon su may dem di yokk cee te te te keroog waa saal ba dañoo ree ba sonu ndeysaan waaw noonu la maanaam yooyu lislaam fekk ko fi da koy dëgëral nun nag dañ ci am yu bare bari nun waa réew mii di Sénégal waaw xam nga ni diggante séeréer yeeg euh, xalpulaar yi li fi nekk ah? diggante pël yeeg ñi sant caam li fi nekk diggante ñu sant caam ñu sant saar lii fi nekk ilaa axiri ilaa axiri noonu rek la suma diggante ak noge yi <laughs> waaw suma diggante ak noge yi tabarkàlla donc loolu politiciens yi bi ngeen ñëwee na bokk seen idéologie na bokk seen programme lu koy dëgëral waaye rikk waaye bu leen ko teppi bu leen ko yàq waaw bu leen ko teppi bu leen ko yàq amal na lu njëriñ lool lu am njëriñ la tabarkàlla li fi nekk ci jàmm loolu def ci juróol bu am am solo bu ñetteel ba ci li tax lislaam ñëw te nu koy waxtaane jëm ci politique te dëgmal ko mooy iqaamatul mahabba wa rahma bayna annaas ndeysaan iqaamatul mahabba wa rahma bayna annaas mooy samp soppante samp yërmande sunu diggante waaw hmm? waaw gis nga sopp sopp mooy cosaanul lépp lu ne ci penc bi daanaka yàlla fi ne bëgg nu sopp ko moo tax mu nuy xéewal ndox mi nuy naan waaw tabarkàlla mburu mi ñuy lekk ceeb beeg yooyu yàlla bëgg nu sopp ko moo tax mu nuy xewal waaw nun tam bëgg mu sopp moo nu tax di def yi nuy jéem bëgg mu sappunu julli fajar julli suba làmb sa poos joxe koo gis muuñ ko koo romb nuyu ko ah di def lu baax yàlla daal nuy sopp moo tax nga dégg ci alxuraan ñoo xam ne yàlla bëggu leen ak ñoo xam ne bëgg na leen imaam lu Taal bu poño dana koy indi tabaarkàlla ci lu bare bare ciy waxtaanam ndax inna allaha la yuhibbu am na ci alxuraan ak inna allaha yuhibbu waaw waaw inna allaha yuhibbu am na ci alquran ak inna allaha laa yuhibbu am na ci alquran foo dégg laa yuhibbu rek dawal foo dégg inna allaha yuhibbu rek daggal daggal bii bokkal inna allaha yuhibbu rek tabarkal la kon yàlla dafa bëgg def suñu diggante al mahabba mbokk yi ab sénégalais day bëgg sénégalais nan bëggante nan bëggante ab sénégalais day bëgg ab sénégalais ndax yëg na noo bokk yaay ñu tuddee Sénégal bokk benn noo bokk benn drapeau wax ne bu ñu la ko joxoon nga dem ca front boobu booy boo bëggee daanu jar na nga ŋànk ko waaw tabarkalla drapeau baa ngoog hmm? waaw waaw nu bëggante nun ñëpp waaye arahma nu yërëmante allahu akbar yërmande dox suñu diggante ñu ngi koy séentu ci yéen yéen way politique yi su ngeen nu toppee li tàmbalee leen di jëm tey def nañu benn introduction bu am solo bu jëm ci aw waxtaan introduction boobu mbokk yi mooy dama doon wane sallallahu alayhi wa nim nu soññe ñun ñëpp mbir mii nu dëgmal yitteel nu mbir mii nu nekk yitteel nu te mooy tànn njiitum réew tànn nañ ba ak juróom juróom yooyu ñu war cee tànn kenn yonent bi ne leen yitteel ndax man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minhum dikk naa ci jataay yooyu wane ci ne lislaam yoonam a ci lépp lu yoonam nekkut amut indi naa ci laaya tabaaraka li na nazzalal furqaan indi ci juróom yi nga xam ne pénc mi buñ dee tànn njiit juróom yooyu bëgg na mu taxawal nu ci ma tolloon ci li tax lislaam ñëw fii te mooy yar suñ bakkan yi dëgëral suñu relation yi samp cofeel ak yërmande suñu diggante teg leen foofu seen baaram naan suñu borom mayum dund ba ëllëg te weesu ko jéggalu soxna yi jégglu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër sunu mbokk yi xees ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncalan ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yii C3S mi ak ñi ànd ak moom yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara a doona coxtaani ma di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa l islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.